أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف العباد سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوكو جوليدي مبوكو تلسبكتاتر سفينة تي في نيونغ لين دي نيو دي لين زيارة دي نيانال نيبيا سبحانه وتعالى يالنا يالا دفلين توفيق yal na yàlla sàmm leen na yàlla aar leen di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla defal ñépp ñi nga xamante ne ñooy teelu yal na yàlla defal leen tawfiq defal leen fatxu waaye tam defal leen li nga xam ne mooy hidaaya bi jaahi saydana wa maulana muhammadin salallahu alayhi wa sallam mu mel ni tey ñu ngi fi ñëw ci seen jataay bu tudd almanar ñëw nag tey ngir fàttalante ak yéen ndax nit dañ kay fàttali ndax yàlla dane fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin nee na yonent bi sallallahu del fàttali ndigim fàttali nag amal na ñañuy fàttali nag njariñ mooy ña nga xamante ne ñooy ñi gëm ñi kon bu dee na lañ koy fàttali am na njariñ mu mel ni kon dina ko jural loo xamante ne mooy yiw fii ci dundu àddinaam waaye itamit ëllëg sa dundu àllaaxira mu mel ni fàttaliku boobu nag di ko fàttali mbokk jullit yi dañu koy fàttali waale itamit suñu bopp ñu dellu tàmbali si laaya ji nga xamante ne moom la buur bi subhanahu wa wa li nga xamante ni mooy baada auzu billahi min alsheytaani irrajim yaa ayuha alladina amanu uzkuru llaha zikran kasiran wa sabbihuhu bukratan wa asila mu ma ni dafa dañu ko laaj lu tax mu ma ne ne wa huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatahu li yuxrijakum min adulumati ila an nur wa kaana bil muminina rahima sadaqallahul azim yàlla subhanahu wa taala sax man ne day wax nañu fàttali muy jàjje ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xamante ne am nañu gëm yàlla te ñu gëm nag dëgg-dëggi gëm nee na nañuy fàttaliku yàlla walla nañuy tudd yàlla subhanahu wa taala tudd gu bari mu mel ni yàlla subhanahu wa taala du yell ci jaam bi sax mu war di ko fàtte wala sax mu ñàkk di ko tudd ndaxte yàlla moomu kat ñeena nañu koy tudd li bari wala ñu koy fàttaliku lu bari waaye nañu koy sàbbaal di tudd ay turam yu sell guddi ak bëccëg suba ak ngoom mën dañ ko defal tomb laaj foofu nekk lu tax yàlla ñu war a def noonu wala lu tax ñu war a defee noonu di la fàttaliku wala di la tudd lu bari mu ne yàlla moomukat mooy ki nga xamante ne moo leen di ñaanal wala boo leen ñaaneekat mooy kay xam ne day nangu seeni ñaan te moom ak ay malaayikaam tam ñooy ñi nga xamante ne ñoo leen di giide di leen gindi di leen niital jàlluwaay wala yoon yi ngeen war a jaare ba tax na doo leen tàbbi benn yoon si ak lëndëm wala boo doon da ngeen nekk sa lëndëm de dina leen ommat niital leen ba ngeen jóge sa lëndëm googu dugg sa leer ndax yàlla moomu de nee lu tax muy doxale noonu sañ a koy tudd di ko fàttaliku guddi ak bëccëg ndax nee dafa ñeewante ña nga xamante ne ñooy ña gëm dafa am yërmande si ñoom moom boobu subhanahu wa la moo tax mu sant ñu nañu koy tudd di ko bàkk di kañ moom yàlla subhaanahu wa guddi ak bëccëg suba ak ngoon façon yi ñu xamante ne moom la ñuy kañee yàlla wala moom la ñuy tuddee yàlla wala ñu kay fàttali ko yàlla mu ni bari na kenn mënu kaa ndax allahu la ilaha illa tudd yàlla la fàttaliku yàlla la subhaanallah tudd yàlla la fàttaliku yàlla la allahu akbar niki noonu mu ne façon boo ko defee rek danga koy yaa ngi tudd yàlla wala yaa ngi fàttaliku yàlla mu ne moo xam nag guddi la walla bëccëg nañu koy def rek bu ko defee ñu xam ne kat ñun ñu ngi bàyyi xel yàlla subhanahu wa taala mu ne nag ak siira wala façon bu ñu ko man ci defee rek baax na la sa yéene ja rek mooy que ne dañuy def li nga xam ne mooy santaane bi yàlla subhaanahu wa taala parce que ñan lay sant nag mooy ñi nga xamante ne mooy ñi gëm ñooñ la yàlla di sant parce que yaa ayyuhal ladina amanu la wax yéen gaa yi gëm yàlla nag waaye ban façon gëm mooy gëm yàlla dëgg-dëggi gëm óolu yàlla waaye nag di dégg waxu yàlla di def ay santaaneem loolu ci gëm yàlla dëgg-dëggi gëm lay bokk ak di jëfe santaane yonentam sallallahu alayhi ma loolu dam day bokk ci loo xamante ne gëm nga yàlla dëgg-dëggi gëm mu ne yàlla mooy ki nga xamante ne mooy wàcce si yéen yërmande mook ay malaakam am nag yéen a ngi jéggalu yàlla di def li nga xam ne mooy al istighfar di tudd yàlla subhanahu wa ndax yàlla nee na nag nangeen ma tudd nag bu ma nee fàttaliku leen ma santaana yi ma leen sant laa leen di wax uzkuruni bi taa mooy tudd gi ngeen may tudd wala fàttaliku gi ngeen may fàttaliku si la nag këne mooy def santaane yàlla yi bu ko defee nag woy salli aleykum wa malaykatuhu door a ñëw taxawaay taxawee taxawaayam këne yàlla subhaanahu wa taala moom ak ay malaykaam de dinañ la wàcceel ne di la sàkkul tamit ak jéggal yow mi nga xamante ne yaay bari di tudd yàlla wala ngay fàttaliku yàlla subhaanahu wa taala bu ko defee nag nee na loolu lépp lan la lay jural al maghfira wa thawaab mooy lan ji nga am njéggalug yàlla subhanahu wa taala waaye mun a du sa yam waaye yàlla dina la sa bindal ay tuyaaba yoo xamante ne ay yiw la nga xam ne yow rek yaaka jago lu la kamay nag mu ne fàttaliku gi ngay fàttaliku yàlla subhanahu wa taala wala boog tudd gi ngay tudd yàlla subhanahu wa taala moo la kamay mu man ni suñu bi yonte sallallahu alayhi wasallam moom tamit daf ñu si doon jaaj di ñu si bàyyi xel bu baax a baax kene tudd yàlla amul lu ko gën a am solo moo tax mu yonte bi sallallahu alayhi mu ne laa tuksiru alkalaam bi gayri zikrillah ne nit moom bu nekkee si àdduna jarul muy jël ay waxam rek jikka bariyal bareyaa gi lan moo koy andi wax lu la neex wax waxi àdduna wax lu sa yoon nekkul di wax wax yu bari yoo xamante ne bii nekkul ne tudd yàlla lay doon ay yeneen i wax la yoo xamante ne day jëme boroom foo xamante ne bii du ko neex ndaxte yonent bi salaa doon na bàyyi loo xel que ne ñu bari ñuy tàbbi biir safara lan moo koy waral mu ne seen bi ci làmmañ mooy làmmañ mooy wax ba dugal leen biir safara yàlla na si yàlla musal kon nag mu ne wax ju bari amul solo amul benn njariñ li am solo te gën a am njariñ mooy lan nee nañuy tudd yàlla subhaanahu wa taala nee na naxte fa inna kasratal kalaami bi gayri zikrillah tuurisu qaswatal qalbi ndax nee nañu kat moom yonent bi sallallahu wax joo xamante ne boroom daf koy bariyal di ko wax di ko wax te amul benn njariñ de dafa am lu muy jural boroom mooy lan day tax da koy andil xol bu wow te xol bu wow nag yàlla nañ si yàlla musal te yonent bi sallallahu alayhi nee na wa inna abada annaasi min allahi al qalbul qaasi mu ne ëllëg de yowmal qiyaama ñi nga xamante ne dañuy sori borom bi subhaanahu wa taala amaana ba sax ba duñu ko gis mooy ña nga xamante ne seen xol yi dafa wow yàlla ñu si yàlla musal waaye lay andi wa xol nag mbokk yi bari na si mooy wax wax yoo xamante ne amul benn njariñ wax wax yoo xamante ne amul benn solo laneen moo la siy fekk mooy lan mooy bàkkaar waaye du yem sa loola rek wax ja day dem ba jural la li nga xamante ne mooy xol bu wow wala xol boo xamante ne bii ah yàlla si yàlla musal mu ñu koy mootandikuloo rek neen nañu bañ a nekk si àddina rek lu ñëw ñu ut sa xam-xam am sa ay wax wax yoo xamante ne duñu jural lu dul alkaande yàlla nañ si yàlla musal kon mun tudd yàlla subhanahu wa taala ndax tuddu yàlla da fay amal njariñ ki nga xamantene mo koy def buñu jëlé ci hadith bu nga xamantene abu hurayra moo ñu ko sorol radiyallahu anhu qala abu hurayra dafa wax ne qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu bi ant sallallahu alayhi wa sallam dafa ñu wax ne ra'aytu laylatal mi'raj bahran neena guddi gi nga xamantene bi yàlla subhanahu wa taala rañaane na ma man yonent bi sallallahu alayhi dama romboon ay yu baree bari maanaam commencé naa asamaani benneel ab asamaani ñaareel ba asamaani juróom-ñaareel fu nekk am na lu ma fa romb nee na bi ma àndee jibril di dem nag ñi yéeg si buraaq dama romboon benn dex dex boo xamante ne mu ne laa yaalamu qadruhu illa allah na mu toll daal nit mun laa ne nii la toll fi la tàmbalee wala fee la yem ku dul yàlla subhaanahu wa taala ma bind dex googu rek moo xam tolluwaayi dex boobu ñeent bi sallallahu alayhi nag ànd ak dex boobu nag ala shaatihi malakun nee na bu mu ñu xoolee ci tefes géej googu nga xamante ne wal tefes dex googu nee gis nañ fa benn malaayka malaaka boobu nag yonent bi salaa salaam mu ne mu nekk ala suurati tayrin boo xoolee mu lay jox picc forme picc daal lay nirool moom malaaka boobu nekk ci tefes boobu yonent bi nee na ànd ak loolu nag walahu sabu alfu jinaaxin malaaka boobu la muy yor melokaanu picc yépp laafam yi noonu la bare nee na am na juróom ñaar fukki junniy laaf moom malaaka boobu waaye malaaka boobu nag dafa am lu ko yàlla sant ba mu taxaw ci tefesu boobu la dex bu rëy te màgg loolu ñan la mooy ñi nga xamante ne la waxoon sànq ñay tudd yàlla lu bari loolu moo tax malaaka boobu taxaw foofu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne iza qaala al abdu subhaanallah ne na amul benn jaamu yàlla boo xamante ne bi nag yaa ngay tudd yàlla di ko sàbbal nga ne subhaanallah lu dul ne malaaka boobu taxaraka min makaanihi day daal di yëngatu man ni ku déplacé wu jóge fa mu taxawoon ngir lan baat bu sell bu màgg bi nga xam ne moom la jaamu yàlla bi tudda di subhaanallah waaye yonent bi salaam mu ne itamit malaaka boobu lan lay taxaw foofu mu ne wa iza qaala al abdu alhamdulillah basata ajnihatayhi nee na jaamu yàlla tamit bu man sant yàlla nga ne alhamdulillah nee na malaayka boobu day daal di firi la nga xamante ne mooy ay laafam ya nekk si moom di juróom-ñaar fukki junniy laaf mbokk yi ngir ne rek am solo bu nga xamante ne tudd yàlla am na ko solo si jaam bi daye boobu la yonent bi sallallahu alayhi ñu misaal sa la mu gisoon ba mu doon rañaan moom ak ànd ak jibril alayhi salaam mu ne malaayka boobu bu jaam bi waxee loolu rek day tàllal laaf yi mu ne wa iza qaala al abdu laa ilaha illa allahu nag mune qara day naw ba sa kaw kaw kaw mom malaka bob neena amul ben jam bo xamantene da ngay wax la ilaha illa allah ludul malaika bobu nak day dal di naw mom ba nga xamantene fa la ka yàlla sante wa iza qala al abd allahu akbar muné bu jam bi tamit tuddee ne yàlla magana muné awqa nafsuhu fil bahri nee na bu ko defee nag salam malaayka boobu door a dellu nag daal di dal daal di wàcc sa biir géej googu ma leen doon wax xamante ne yàlla subhaanahu wa taala rek moo xam na mu toll mu ne malaaka bi doo la ñëwaat dal fa nag bu ko defee nag malaaka bi du yem si loolu rek nag waaye nee na bu nit ki waxaatee la hawla wala quwata illa billahi al ali al azim nee na yuxriju fa yanfadu janaaxayhi malaaka mi nag day mal ni ku nuuroon duggoon ci biir géej googu nag bu waaye nit ki nag bu ne laa xawla wala quwata illa billahi al azim mu ne malaaka bi day daal di génnaat daal di mal ni ku firiwaat laafam yooyu nga xamante ne moom la àndal bu ko defee yonent bi sallallahu ne ne may xool di xool ma gis malaaka bi laaf yooyu ma leen waxoon muy juróom ñaar fukki junniy mbokk yi laaf bu nekk day am toq ndox bu say sotte ko di sa bàyyi ko ndax dugg gëmu duggoon ci biir géej googu nee nag yàlla subhaanahu wa taala nag benn toq ndox bu nekk nag yaxluqullahu taala malakan yàlla da ci bindaat beneen malaaka ci toq ndox yooyu joge ci dunk yooyu wala ci laafu malaaka boobu soobu woon sa biir géej gi mbokk yi nee bu ko defee nag bu sa yàlla bindaatee yeneeni malaayka nag lan lañuy ñuy def malaaka yooyu dañuy nekk nag yu sabbixuuna dañuy nekk di sàbbal yàlla wa yu halliluuna di tudd yàlla di wax laa ilaha illallah wa yastaghfiruuna li qaari'iha ila mbokk yi dinañu sàbbal yàlla di wax laa ilaha illallah di wax astaghfirullah ñoom malaayka yooyu yàlla bindaa si toq ndox yooyu nga xamante ne moo bàyyee ko woon sa malaaka bële bu ko defee nag loolu yépp lan lay jural jaam bi ki nga xamante ne moo doon tudd yàlla subhanahu wa taala mu ne loolu yépp yàlla da koy defal ki nga xamante ne moo waxoon baat yooyu yépp ak njéggal la yàlla di jéggal ay bàkkaaram ba yawmal qiyaam kon muy loo xamante ne lu ama am solo la moom tudd yàlla subhanahu wa taala mu mel ni jafe na waaye jafewul mbokk yi mu mel ni tudd yàlla foo manti nekk fu mu la manti fekk man nga ko fa def comme nañu ko yàlla waxee ña nga xamante ne dañuy tudd yàlla yàlla mu ne bu ñuy tudd yàlla qiyaaman moo xam dañuy taxaw sax di tudd yàlla mu mal ni dara amu si parce que innamal amalu binniyaat mu mal ni yàlla yéene ba la say fay wala waqu udan moo xam danga toog nga jël sa temps nga jàpp julli toog di tudd yàlla mbokk yi mu ne loolu tamit yàlla wax nañu ko bu dee mënoo taxaw mënoo toog mu mal ni mbokk yi ku taxawul toogoo xëy na da tëdd kon mu ne wa ala junubihim nga tudd sa weenu wala nga tëdd ni nga ko jekkoo ngay tudd yàlla itamit mun a loolu yiw rek moo say nekk ndax yàlla xam na la nga sa yéene moo ma ne lu ñu bëgg wax rek mooy lan lañ lay fàttal rek que ne jaam bi waru toog benn benn benn benn jamono wala benn instant mooy li ñuy wax laasa ba xelam wala xolam day fay fàtte yàlla wala mu ñàkk tudd yàlla mbokk yi parce tudd yàlla googu de yow di nga jariñu parce que fii si àdduna waaye dina la jariñ si biir bàmmeel waaye itamit dina la jariñ ëllëg fa nga xamante ni mooy yowmal xiyaam mbokk yi mu ma ni kon tudd yàlla foo mu la manti fekk noo man ti tooge wala da nga taxaw wala da ngay dox sax wala da nga tëdd dañ la koy sant yow ki nga xamante ne yaa ne yaay jaamu yàlla bi wala boog yow yaay ki nga xamante ne yaa ne yaa gëm yàlla parce que yàlla bi mu doon wax fii nan la si waxal message bi yaa ayyuhallazina amanu yéen gañ ngeen xamantene gëm ngeen yalla waye nak deug deug gëm yalla parce que yonent sallallahu alayhi wasallam bañ ko don laaj gëm yalla moy lan wala nan lañuy xamé ki dafa gëm yalla mom dana gëm yalla nek lo xamantene kaddu la bu nit di génné wala geste la bu nit di def waye gëm yalla fan lay nek ma waqara fil qalbi la wax lo xamantene day sax si xol lo xamantene day nek si xolu nit ki muy ànd ak muy dund ak mu deew ak mom waye ëlëk tamit mu wala ak mom kon loolu moy gëm yalla waye nekkul comme niñu ko gisé suñu jamonoy tay ji rek nga gis nit rek mu am nu mel nga ne ah ki de ku gëm yalla la nga gis nit mu wax kaddu nga ne ah ki ku gëm yalla la gëm yalla kenn mënu ka ah, sédel nit ki day nekk lo xamantene day nekk digënté nit ki ak borom bi subhanahu wa taala te ku gëm nak yàlla xam na ko waaye tamit ku gëm moom si boppam xam na parce que arab yi ba ñu ñëwee si yonent bi sallallahu alayhi wa lan lañ ko wax aman na gëm nañu te gëm yàlla nekkul lu yombee noonu waaye yàlla lan la wax sa saa si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul lan tu'minu waxal ñii na ne ñaaw naan gëm nañu wax leen gëmagu leen ndax lam maa tadd xulil imaana fi qulubihim gëm yàlla nekkagul duggagul seen biiri xol ba ngeen ñëw naan gëm nañ waaye lan ngeen di wax xuulu aslam naa wax leen ne leen jébbalu nañ adhéré nañu jënd nañ carte membre bokk nañ si jullit yi mais gëm yàlla moom àggagul foofu wala àggagu leen si étape boobu kon mu mel ni gëm yàlla nekk na loo xamante ne lii yàlla buy joxe message yenn yi ci foofu lay tàmbalee yaa ayuha lazina amanu bu ko waxee rek kon ña gëm yàlla rek lay waxal parce loolu am na boroom xam-xam yu si doon indi ay wax que ne yàlla yu mu tudd na yaa ayyuhal lazina amanu fekk na jamono boobu lislaam am doole ba ñu dem madinatul munawwar ba yonent bi salaa salaam effacé foofu yëpp ba ñu jàpp ne diine ji ñëpp ñëpp ñëpp ñu gëm yàlla lañ waaye yàlla bu doon wax na yaa ayyuhan naasu jamono boobu màkka la woon kon amoon nañu gëm amoon nañu gëmul kon moo tax nag ah, gëm yàlla nekkul lu yomb waaye ku ko yàlla may nga sante ko yàlla nag ànd ak di fàttaliku yàlla mooy koo xam ne sax du fàtte yàlla bu ñu mënee wax ki gëm yàlla ki du fàtte benn yoon yàlla bu ko defee nag ah dina nekk loo xamante ne sa xol lay sax waaye nag lan moo koy dëggal gëm yàlla googu yonte nee na wa sadaqahu al amalu saalih lii wone lii confirmer que ne kii ku gëm yàlla de mooy ay jëfam yu baax ay baax baaxam ay façon jaamu yàllam ay askaaram ay yiwam ay kàddoom ay ay manam lépp yëngu yom góom bu muy def rek gëm yàlla dasay daal di tàppe da siy feeñ kon mu mel ni nekkul lu yomb waaye yàlla moo koy maye la ñuy wax nuural imaan muy leeru gëm yàlla nekkul nag xol bu nekk lay tàbbi mooy xol bu yàlla ne sa naka sa tàbbal sa lay dugg moom leeru gëm yàlla googu mu mel ni nekkul lu yomb kon mbokk yu ñuy fàttali suñu bopp di leen fàttali na que ne nit ki amul lenn lu gën a foor wala lenn jaamu yàlla bi amul lu muy def lu ëpp tudd yàlla subhanahu wa taala mu mel ni ñoo ngi woon seen jataay bu tudd almanar ñu leen di tàggu fii tàggatoo bu dul tàggoo rek di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin